bon asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu nuyoo waa àdduna mbokk internet yu ñuy seetaan yëpp di nuyu waa Thiès rawatina waa Thiès Nord ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar waa tey ñàmbe comme ni nga ko laajee rek dañu woote ci sunu centre bi nga xam ni euh, amicale des terres et salon de commune de Thiès Nord ñoom ñoo am centre de formation boo xam ni ñu ngi ko amee depuis deux ans ndax ren ñu ngi sunu deuxième année yàlla dogal na ñu ñooy nekk fii ci case foyer bu Médina Fall ah di former xale yi rawatina sunu rakk yu jigéen ñi ak sunu jarbaat yi di leen former si ñaw ak ci salon de salon coiffure. waaw salon euh, formation bi. Hmm. formation bi. nag payante la. payante la ñu ngi koy def ci durée de trois trois ans mais payante la mais prix bu abordable parce que rek mooy dañuy dajale loo xam ne dañuy fayee professeurs yi nga xam ne ñoom lañ jël. ndax ci biir formation bi dinañ fi def am nañ fi emploi du temps bu riche dinañ jàng du lundi au samedi dinañu jàng euh, français dinañ fi def zim dinañ fi jàng euh, tamit Arab. ndax lundi 15h 16h30 ñu ngi am zim 17h 17h30 ñu ngi am français mardi 15h 16h30 ñu ngi am couture 17h 18h30 ñu ngi am création di fi créer xale yi ci seen yokk seen niveau di leen jàngal création mercredi quinze heures ba 16 heures 30 ñuy jàng mesure ndax bu ñu waxee téyeel mesure moo tax nan la ñuy jëlee mesure yan xeetu mesure moo am exact yan mesure la ñuy utiliser ndax bu dul ñaw bu dul mesure ñaw du baax kon mercredi la ñuy am mesure 17 heures ba 18 heures 30 ñu ngi am couture ñu toog ci machine yi ñaw bu dee jeudi ñu ngi def couture quinze heures 16 heures 17 heures 18 heures 30 ñu jàng français boo gisee nag lu tax ñu dugal ci langue bi kuy wax teer wax kuy wax jël mesure di nga wax di nga jël note aussi di nga am ay client di wax ak ñoom moo ñu leen di renforcer ci wàllu français bi di leen yokk di yokk seen niveau pour ñu mën a bind mën a lire euh, bu dee vendredi 15 heures ba 16 heures 30 17h30 17h ba 18h30 ñu def couture arab bi tamit waral mooy ay xale jigéen nañ war nañu xam seen diine aussi war na nañoo mën a bind araab di ko liir bu dee samedi ah ñu def création création samedi lañ koy àggale kon loolu mooy emploi de temps bi nga xam ne moom moo nekk ci centre bi di ko jàng lundi ba samedi. Hmm. waaw bi. bi ko hmm. joxee ba pare. Hmm. yan façon élèves ngeen am jàng aussi. nee nga seen deux ngeen nekk ndax tamit. am ngeen yoo xam ne jot nañu ok waaw actuellement nii élèves yi mënaguñoo génn parce que formation bi dañ ko bëgg a tënk ci trois ans mais yàlla dogal na premier année bi jàng nañ 7 mois bi ñu jàngee 7 mois ñu am fi ay élèves yoo xam ni ci suñu yitte ak ñoom seen bëgg yàlla may leen ñu man dara ba ñu yóbbu leen stage actuellement nii am nañ 4 élèves yoo xam ne ñu ngi stage na ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci bafu collection fa lañ dem di def stage am na ñaar ñoo xam ne ñu ngi jarabi couture kon tey loolu ci premier waa première année bi teewul première année boobu ñoom ñëpp ñëwaat nañ ñu amaat nag nekk deuxième année ñu amaat beneen première année boo xam ne mooy ñi ñëw ren incha allah bëgg nañu bu ñu la toppee ba nga def 3 ans ñu jox la diplôme boo xam ne. foo ko déposé ñu reconnaître ko mais chaque année dina am attestation de passage jox la ko ñu wane ne yow kat passé nga ci année bi dem ci beneen année. moo tax mais nag dañuy am ay élèves yoo xam mosuñoo jàng am ñoo xam mosuñu jàng ñaw am na ñoo xam nag bi ñu fiy ñëw mus na ñoo def ñaw mais dafa bëri lu ñu manqué mooy ay mesure mooy coupe yooyu dañ ko fiy jàngale am na ay cours yoo xam ne cours coupe la nan la ñuy daggee. nga mën ñëw tay baas mën ñëw jup mën ñëw robb mën a ñëw blouse mën a ñëw tenue de travail mën a ñëw super 100 mën a ñëw ba veste ci waa année loolu lañ leen di euh, pour ñu kenn ku nekk nga am loo mënal sa bopp daal. niveau élève yi ndax. Hmm. bi. Hmm. am na boo xam ne si ngeen yem wala yëpp ngeen yem. waaw ñun âge yëpp la ñu mais par exemple xale bu ndaw bi nga xam ni mënagul dara kooku dañ koy sant ay parents mu yóbbu ko école mais des fois dinañ fi jël ñoo xam ni passé nañ CM2 dem nañ ba CM2 mais dinañ fi jël koo xam ne mësul jàng dara fii la njëkk a jàngee mais ñun ñoo koy orienté xool aussi tamit. daaw ci première année bi da nga gis sax ay mag ñoo xam ne ay boroomi kër lañ mais dañoo bëgg ñu seen métier moo tax âge bi daal moom focaliser wuñ ci de trop. maam yow daal nekkal ku bëgg ñaw bi te yaakaar ne ñaw bi mën nga cee am ndax yokkute la ndax boo xoolee daaw presque ci zone nord bi la ñu amoon mooy Kër Issa ak yooyu mais ren dafa ubbeeku ba Thiès yëpp am na fi élèves yi jógee Cité Senghor am na fi jógee Cité Lamy am na fi ci loolu nag la ñuy def appel di woowaa Thiès yëpp di wax ni ba tey place yi des na mais dañ koo limité nombre de place dañ koo limité te incha allah bu décembre bi jeexee dootuñu jël benn xale léegi nag dañuy continuer liggéey ak groupe bi nga xam ne moom la ñu yore. gisee yow waaw salaamaaleykum euh, waa Thiès salaamaaleykum waa Medina Fall euh, di nuyu ñëpp waa vraiment di rafetlu bu baax a baax Merveille TV euh, di rafetlu seen liggéey bu baax a baax ndax am na solo waaw comme ni ko secrétaire Matar Diène waxee waaw ñun mën na ni ay ay jeunes lañ rek nekk fii ci nga xamante ni mooy zone nord chaque jour ñuy bëgg développement li nga xamante ni mooy zone nord di jëm ci kanam. moo tax ñu indi ay création xool lan lañ mën a euh, wàññi ci chômage bi nga xamante ni moo am fii ci ci dëkk bi ndax ku xam dëkk bi xam ni métti na actuellement ndax jeunes yu bëri amuñu ay formation surtout jigéen ñi moo tax ñun ñu xool ci wàllu association bi nga xamante ni moom lañ jiite ñooy président bi euh, ñu xool yan activité la war a mën a ba aider li nga xamante ni mooy chômage bi quoi fii ñu wàññi ko le maximum quoi léegi nag ñu essayé ubbi benn centre de formation pour xool ñi nga xamante ni mooy sunu raq yi jigéen yi ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni yitteel na leen ñu ñu orienté leen indi leen fii ci kaas bi daanaka sax xawoon naa métti woon lool mais ñu fexe ba su borom jàppale ñu ci ndax nit ku ne amul lu mbébét mais soo bébétee rek suñu borom da dimbali bu baax baax ñu nag ñu tàmbali def ay acte ak ay activité ba centre bi taxaw bi centre bi taxawee nag yàlla dogal na ni ñu ñu sant yàlla bu baax na am na première année bi jàll na ñu gis ci résultat élèves yi ñu amoon bu yokk baax a baax a baax comme ni ko secrétaire waxee rek nit ñi ñu ne ñu ngi jógee fu di woote di ñëw ci centre bi mais loolu yaakaar naa ne ndamu waa na Fall la en plus tamit ndamu zone nord la quoi. ndax waaw xam nga loolu nga wax am na solo trop ndax nit moom mënatoo def dara te am communication surtout euh, réseaux sociaux yi mais ñun ñoo ngi liggéey ci loolu. ndax première année bi jàll na ni mu war a jàlle te tamit li bëgg mooy dañu bëgg fépp fi ñu dégg centre yi nga xamante ni ci àdduna laay wax ñu dégg centre bi quoi parce que euh, am na njëriñ fii ci Médina Fall te pare nan pour euh, médiatiser ko bu baax a baax ndax loo médiatiser wu mu mel ni moom yaakaar naa ni bis boo ko médiatiser incha allah dañu ciy am réussite totale te loolu lañ ci soxla quoi jàppale suñu wàq yi. mais dafa mel ni tamit yeewoo leen ci couture bi donc moom tamit dafa bokk ci formation bi wala lan ngeen ko ci waaw dafa bokk ci emploi du temps bi ndax gym la euh, mais ki nga xamante ni chaque jour dafay toog di ñëw yaakaar naa ni dafa laaj mi def tuuti sport yëngatu ndax toogaay bu bari dafay indi leneen moo tax ñu boole ci programme gym bi ba nga xamante ni dañ mën a yëngatu ndax chaque jour dañuy wax naan téer Euh, su demee ba benn as bi problème wu ndigg am ak yooyu moo tax ñu boole ci en plan de temps bi nga xamante ni mooy gym da ciy baax quoi vraiment loolu la taxoon ñu ñu def ko ci. ok jërëjëf. jërëjëf ok merci Mbaye Mbaye <laughs> ñu ngi rafet lu baax a baax nag Medway ndax seen liggéey am na solo quoi donte que sax bi site bi juddoo yàggul noonu mais dañuy gis léeg-léeg ngeen di apporter lu am solo fii ci commune bi te ñu mel ni yéen dañu leen a war a jàppale bu baax a baax ndax liggéey bi rafet na surtout. dañuy remarqué nan la ci liggéey bi nga doon nit koo xamante ni royuwaay nga fii ci ay acteurs développement yoo xamante ni tamit sunu sag nga ñu leen di ñaanal fépp fi nga xamante ni ngeen bëgg a àggale euh, site bi yàlla na suñu borom defal leen dëgg yàlla leen encourage bu baax a baax ni leen noonu la quoi du courage dina baax incha allah merci.